ñu gën a farlu ci tàmbalee ci sëriñ bi te yem ci sëriñ bi ndax sëriñ bi dey doy na sëkk ci zaaxir doy na sëkk ci baatin ña nga xam ne mënul woona ñàkk seen ngërëm wut na ko ba am ko sëriñ bi cheikh Tijaan yi gërëm na ko sëriñ bi cheikh Abdul gërëm na ko sëriñ bi e, imaam Shaafi gërëm na ko sëriñ bi imaam Malik gërëm na ko sëriñ bi mbooleem ñeenti ngir yi ak xut bu samaan yi gërëm nañu ko sëriñ bi saxaaba yi gërëm nañu ko xulafaawu arbaa yi ñeent yi sëriñ bi yonent bi gërëm na ko yàlla gërëm na ko ñii nag la mënul woon ñàkk seen ngërëm te am na ko am na ko ba noppi weetoog yonent bi mu yóbbu ko ci boroomam mu tàbbi ci boroomam foo xam ne boobaak léegi taxawul fenn ndax boroomam moo dalewul fenn yemul fenn boobu sëriñ nag ku ko yàlla wërsëkale wax dëgg yàlla amatoo looy jigaani wala looy abbi wala looy sàcc wala looy ñaan li ci des bu dee wàllu histoire la historien yi nettali histoire u bu boobaa kenn du wax ne historien sàngam ci tariixa sàngam la bokk day saña tudd sëñ Touba sañ tudd Cheikh Omar sana sañ a tudd Alxaaji Malik sana sañ tudd alxaaji Ablaye ñas ak keneen parce que loolu wàllu mboor la rek histoire la waaye ki ñëw fi barab fas yéene waxtaaneb sëriñam na tàmbalee ci moom te yem ci moom te sëriñ Touba day wax dëgg yàlla jegaaniwul dara dara la jegaaniwul sëñ bi gannaaw ñii ma wax ni gërëm nañ ko keneen ku ko jege ku ne yaa sàkku ngërëmam ba am ko sëriñ bi ay waajuram sàkku nañu ngërëmam am nañu ko ay magam sàkku nañu ngërëmam am nañu ko ay nijaayam sàkku nañu ngërëmam am nañu ko ay rakkam sàkku nañu ngërëmam am nañu ko ay jarbaatam sàkku nañu ngërëmam am nañu ko ay jàmbuur sàkku nañu ngërëmam am nañu ko te ku ci ne ba nga ko liggéeyalee ba mu gërëm la jariñu nga ci wacc fi njariñ loo xam ne ba doo ak say taalube ci lañuy tedd ba léegi sëriñ bi aw turam képp ëpp naa tudd mag ñi dañ daan jàpp ba set door a ñëw tudd sëriñ bi kon nañu farlu comme des na ay waxtaan te am na ñoo xam ne faw dinañ dem waxtaane te mënuñu koo ñàkk a def nañu xam bu baax li ñuy wax xam bu baax li ñuy nettali ci ay xisa xam lu yenu maanaa ak lu yenuwul maanaa xam lu xel nangu ak karaama booy nettali karaama da nit ñi dinañu xam ne lii karaama la waaye booy nettali loo xam képp danga koy waxee noo xam ne day leer naññi xel yépp mën ko dégg lii daal nañ ci góorgóorlu te wottandiku bu baax sunu réew mi ndax tariqa yi ndëgër diine la e, genre compétition bi ngeen ciy gis du feeñee comme ni nawetaan day feeñee cig defaru murit bi gën a defaru day soññub tiijaan tiijaan ba gën a defaru day soññ ab murit xaadir ba gën defaru day soññ ab tiijaan tiijaan ba gën defaru day soññub laayeen képp koo xam ne sa sëriñ baax na te yow baaxuloo te war a baax defaru te sëñ Tuubaa dane woon taqoo defaru murit yi nañuy taqoo ak seeni sëriñ di leen ziyaar di leen jox addiya di sàkku seen dinañ ci defaroo loolu rekk moo leen amal njariñ waaye leneen amalu leen njariñ waxtaane sëriñ Tuubaa kawe la waaye balaa koo defal nit day fekk sax mu yelloo ko sëriñ Saaliwu Mbàkke yàlla dafa masa dogal këram sëriñ Cheikh Fat Tàkko Jóob daje fa ak euh, sëriñ Moustapha Guèye Yarwaay ak Cheikh Béthio Thioune booba Cheikh Béthio Thioune mii doonagul ab seex ab taalubeem la bu baax bu mu gërëm ab dimaas bën ñëwee toog mu woo sëñ Cheikh Fatakko ak ñenn ci mag ñi ñu ñëw toog mu ne leen Béthio mii dama bëgg ngeen waxtaanal ma ko ci sëriñ Touba ndax moom de gërëm naa ko kon sëriñ Saaliw ku mu gërëm la yellale ñu waxtaanal ko ci sëñ Touba keroog bañ waxtaanee ba noppi ba sëñ Cheikh Fatakko Diop war a ñibbi Cheikh Béthio moo taal otoom yóbbu ko ba muy dem ndab li nga xam ne moom lañ doon añee sëñ Béthio nee na da këpp ci mbubbam dugg ci sama oto bañ àggee ca péncam ma mu wàcc daal waa këram kaay leen xool ku sëñ Touba gërëm ndax yombatul man de noonu naa sax amatul waaye ndeke mi ngi am ba léegi lii mooy li am. kon bu fekkee ngërëmul sëñ tubaay tax nga mën toog ñuy waxtaan ak yow ci sëñ tubaa bu jàppandee ba war a nekk loo xam ne dañ koy def ci rajo wala ci tele dañ ko war a teg ci yoon nekkatuñ ci jamono yi ay diwaankat yooyu daa takk rajo di wax yu kenn xamul vraiment il faut être factuel li ngay wax dañ koy teg ci yoon teg ko ci xam-xam teg ko ci histoire bu leer te it yéen waxtaankat yoonu murit jege leen Baye mbay Guèye Syll bu fekkee wàllu histoire yoon bi intéressé na leen parce que yor na ay document li muy wax am na ay date am na ay dat yu précis am na ay personnage yu leer duñ la ne kooku moo fu mu neen lépp dafa leer da ko bind te ngeen xool téereem bi te jàng ko te wéy di jàng te xool aussi ni ngeen di adapté seeni discours ak jamono ji jamono ji dafa changé nit ñi li ëpp ci seen doxalin ci seen xel lay bàyyi ko te xel yi bu ngeen leen daanul du ngeen mën a dugal ngëm ci ñoom kon maa ngi leen di ñaan ñu wàññi coow li te te yaatal dënn yi te rafetal lépp te may wax sunu bokk tiijaan yi itam ne leen euh, Seydil Xaaji Malik ku ko tudd danga koo bëgg a màggal ku ci wax dara loo xam ne njuumte ku juum dañ koy jubbanti kenn du ko saaga kenn du ko duma dañ koy jubbanti ñu ngi leen di ñaan loolu saa bu amee ci waxtaankat yi indi leen taarix ba nam leere ngeen jox ko ko ndax gisuma ci yéene kenn ci ñoom nag koo xam ne jàpp naa ne suufeel ku tedd kooku rek moo tax Seydi Xaaji Malik ku ko jéem suufeel doo yàlla yëkkatil boppam la ndax mbokkum sëriñ bi la kon euh, noo ngi ñaan rek ñépp yaatal seeni dënn ndax nag euh, dëgg la bundee dee waxtaanee sëriñ na ko njabootam waxtaane terewul nañu xam patrimoine national lañu Seydi Hadji Malick ña nga xam ne ñoo amee wérde ci silsilaam ñooñu mooy seenub sëriñ xaqiiqatan waaye nag patrimoine national la comme ni ko alxaaji Ablaye Niass nekkee comme ni ko Maba Jaxu nekkee comme ni ko sëriñ nekkee comme ni ko keneen ak keneen nekkee c'est un patrimoine national patrimoine national nag xam ca dara xam ca lu wér ba buñ la ci laajee nga mën a indi ay leeral wax dëgg yàlla lu ma jàpp ne it lu mat a bàyyi xel la su cadre tarixa léeg-léeg nay dem ci cadre histoire di dem ci cadre partage parce que ëpp dañ ci war a am cër man de yàlla maa ngi ciy sant li ci des it ma waxtaan bi mooy témoignage yu tubaab yi lu mat a wattandiku la nettali naa leen fi histoire maraan juif yi mooy ñi nga xam ne dañoo tuuboon dugg ci christianisme te neexu leen parce que dañ leen ko forcer après les inquisitions nettali naa leen fi histoireu Dëmne yi mooy juif yi tuuboon dugg ci lislaam turki te neexu leen parce que dañu dañuy rey sabata yu demee noonu nag am na ci biir lislaam ndax koo dégg muy wax xaddiis day wax maanaam xadis bu wér la kon xadis yu wopp yi fu mu jóge ay jullit yoo xam ne seenu jullit wérul te yàq lislaam rekk a leen tax a jóg ñoo wax ne diw nee na diw nee na diw nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu nag technique boobu tubaab yi dugal nañu ko ci biir tariqa yi moo tax man nga am seere yoo xam ne Euh, ndax tubaab yi bu fekkoon ne lépp lu Seydil Hadji Malick def rafetlu nañu ko neex na leen euh, duñu wut ay nit yu koy saytu di ko espionné te loolu man dégg naa sëñ Cheikh mu wax ko am na ñu ko doon espionné donc bu ñu lay espionné mooy wóoluwuñu la parce que tubaab mënta wóolu jullit bu ak njullitam wér wóoluwuñu woon sëñ Touba y des espions chez Serigne Touba yi kon seere yu yi ñuy wax naa diw nee na Seydi Xaaji Malik nangam yooyu di lépp luñ ko taggee lu dul ak njulit gu wér ak jaamu yàlla ak maandu dañuy fen lépp luñ taggee sëñ tubaa lu dul ak njullit ak jaamu yàlla ak maandu dañuy fen tubaa bi dañoo ñemee fen seen archive yi y a plein de choses yoo xam ne neexu leen duñ ko nettali duñ ko feeñal loolu ñun xam nañu ko am na ci loo xam ne gis nañu ko ñu ngi koy bind bu àggee lu ci bari dinañ leen ko leeralal mais wallahi wal quraanil jullit jullitay mbokkam jullit jullitay mbokkam na ngeen jàpp loolu doxee moo gën fuuf bi ñiy jaar nii di saaga ñi ñi jaar nii di xulóog ñi di wax ñi leneen ak leneen vraiment may leen nit ñi aafiya nag ñu ñu respirer quoi dëgg-dëgg sañ nañu ko bu wér sañ nañu ko bu wér sañ nañu ko bu wér ñépp a fi ay bokk lañu bu dara bu bu dara desatul woon lu dul deretit ak ay bokk ñoo fi ne am na ci loo xam ne eh, jaru ko gisuma intérêt bi donc question questions certaines réponses certaines idioties dëgg-dëgg war nañ ko weesu daal war nañ ko weesu bu baax a baax a baax ndax euh, du yëfi nit du yëfi nit daara nag gisuma lu ci rafet gisuma ci lu ci jara net li ay mag yi jëmm ay boroom kër ay ay nit ñoo xam ne la ñuy waxante euh, gisatuma sax kañee di ko defante fii mu ne nit ñi dañoo confiné wu nit ñaa ngi ci problème mu santé nit ñaa ngi stressé parce que kenn liggéeyul jafe-jafe yaa ngi fi loolu lañu ñu war a seet lan mooy solution bi ak nan la ñu war a defar ba sunu rek réew mi jëm kanam sunu réew mii il faut ñu góorgóorlu ba mën a am unité national mën a am un idéal national construire vraiment quelque chose qui pourra nous permettre de vivre gentiment c'est même bu fekkee dañuy wax nii pour yëf yi calme nangam li ci xol yi moo war a génn parce que amu fa place li ci xol yi rek moo war a génn nit koo xam ne yàlla rek ay yitteem kooku la nga xam ne moom la jàpp ne moom la war a def muy ëmb lu rafet ci xolam di ko wax di ko jëf ëmbal ñépp yiw gëm kenn te fonk ñépp gëmal kenn te fonk ñépp waaye daal sëñ Ablaye Diop Bichri sëñ Saaliwu Sàmb euh, sëñ Gànna Mesere yéen ñi nga xam ne yéenay dem ci plateau yooyu ñu woo leen fa ngir sëñ Touba tàmbalee leen ci sëñ Touba bu ngeen di joxe exemple yem leen ci ay taalubéy sëñ Touba buñ leen woowee ci ay débat national nag ak bu boobaa sañ ngeen faa waxtaanee lu ne loolu moom waaye lii moom ñu ngi leen koy ñaan bu ci kenn tuddati benn baat boo xam ne daal ku bokkul ci yoonu murit dana yëg ne liikat dañ koo tudd te neexuma mu jëm ci sama kilifa nañ ci góorgóorlu bu